ñu jàll ci fii ak fee ak euh, Didi euh, tey nga ñuy présenter association bu tudd Tringa dëgg la Pape association bu tudd Tringa euh, ki ko euh, ki ko entamé muy présidente bi léegi mu ngi tudd Awa Thiam xam naa sama yaay ju ndaw la donc euh, ñoom ñu ngi créé association boobu en 2014 pour participer ci li nga xamante ne mooy vie socioculturelle lu orphelin yi donc ñu ngi koy def depuis un bon bout de temps et puis moom puisque basé wul fii mi ngi basé fële nga xamante ne mooy Italie ci la décidé nag gën ko yaatal boole ci ñi nga xamante ne mooy les Sénégalais de def ko boole leen ci def ko li nga xamante ne moo di Gorée un orphelin Pape ñu dem déglu ko ci micro Didi damu te ñëwaat ci plateau bi léegi. <laughs> Pringa Diaspora parce que dañu créé woon Pringa Sénégal depuis 2014 qui aidait les orphelins qui aide les orphelins à travers la santé l'éducation et la culture. donc bi jële principe bi noonu ñu ne nan aider les enfants na commencer sur la racine pour aider leen ci yëpp yu jëm ci culture bi et tout ma amoon benn projet qui m'est cher à travers cette association là c'était euh, de parrainer d'adopter affectueusement les enfants ci la demoon wax ci avec la pouponnière de Dakar avec laquelle on travaille depuis des années chaque année dañuy def en décembre dem jox leen ay dons essayer de jox jox leen aussi ay cadeaux donc euh, bi ma waxoon ak euh, la sœur Christina ma ne ko j'aimerais bien ñuy adopter au moins xale yi même bu nu mënul juridiquement ñu def affectueusement c'est-à-dire parrainer leen ci laa jël idée boobu nag ba un jour comme man je vis en Italie benn jour une télévision de la diaspora m'a invité pour une interview ñuy wax ci association bi suñu projet ba mu laaj ma lan laa am comme projet pour les enfants et donc ma ne ko man j'aimerais bien vu que je vis en Italie lancer le un projet qui m'est à cœur ça veut dire un immigré un orphelin euh, pourquoi un immigré un orphelin parce que comme ñun ñi ngi dëkk foofu Euh, xale yi les orphelins ils sont un peu partout au Sénégal que ce soit euh, à à Fatick à à à Thiès à Louga toutes les régions du Sénégal et nous aussi de la diaspora on vient d'un peu partout de toutes ces régions là. J'avais pensé que mënuñu def lépp on peut pas changer le monde mais c'était important pour man ñu essayer aider xale yi ma gis ci orphelins yi nga xam ne amuñu ay parents j'ai dit bu ñu xeeb dara. parce que ku nekk xëy na mi ngi liggéey am na ci li nga jàpp mais on prend chacun 7 euros mu nekk 5000 au Sénégal ñu man ko jël may ko benn xale au moins boo adopté affectueusement on commencerait par ça par exemple lool au moins man nga ko assurer di ko joxe ku nekk mooy choisir par exemple on n'a pas besoin de ku nekk euh, euh, par exemple ku naître à Louga. Manna na un enfant en Louga ça lui permet de quand il est là-bas dina ko gis xale bi xëy ne dina ko gën a jàppale et tout ça bu ñu déparé ci 7 euros yi. ku nekk aussi beneen dëkk mën nga choisir c'est pas un concept de fii laa dëkk fii adopté mais au moins participer à la vie de ces enfants là de ces orphelins essayer de les aider et donc euh, bi. Euh, télévision euh, italienne boobu de la diaspora bi mu ko defee et euh, l'idée à séduit vraiment sama mbokk immigré yi tout ñoom ñëpp d'ailleurs y en a qui m'ont proposé comme ay ñoom Omar Bokoum ñoom Grand Gassama Pape Gassama Soare qui est notre coordinateur là-bas et ñoom ñëpp vraiment ñu nañu ñun bokk nañu nañu jël idée bi nañ ji ma xool nu ñuy former bureau nan xool et puis du ñu yem ci lool rek ce projet la qui qui qui me tenait à cœur et qui tient à cœur euh, à eux aussi moo tax ñu insister pour def association bi ñu ne nan leen ko def nañu def aussi ut subvention les enfants nan essayer di leen envoyer tous les mois 7 euros comme ça ce ce projet de un immigré un orphelin ñu essayer ko assurer dans un premier temps donc voilà pourquoi Tringa Diaspora et pourquoi le projet un immigré un orphelin. Tringa Diaspora parce que dañu créé woon Tringa Sénégal depuis 2014 qui aidait les orphelins qui aide les orphelins à travers la santé l'éducation et la culture. donc bi ñu jëlee principe bi noonu ñu ne nan aider les enfants nan commencer sur la racine pour aider leen ci yëpp yu jëm ci culture bi et tout ma amoon benn projet qui m'est cher à travers cette association là c'était euh, de parrainer d'adopter affectueusement les enfants ci la demoon wax ci avec la pouponnière de Dakar avec laquelle on travaille depuis des années chaque année dañuy def en décembre dem jox leen ay don essayer de jox leen jox leen aussi ay cadeaux donc euh, bi ma waxoon ak euh, la sœur Christina ma ne ko j'aimerais bien ñuy. voilà donc elle nous explique un peu association bi nga xamante ni moom moo ko def tuddee ko Tringa Diaspora on l'encourage parce que ñu ngi gis yi nga xam ne ni moo koy def un immigré un orphelin dimbali xale yi nga xamante ni soxla nañu ko c'est bien on ne peut que saluer euh, démarche bi ak moom ni mu ciy doxee moom Awa Didi. Mm-hmm. dëgg la Pape Cheikh te dafa nekk mbir moo xamante ne tey motivation bu bëri moo la ci euh, war pour nga mën koo àggali souvent ay nit dinañ lu mel nii mais euh, ak bitim réew ni mu jaxasoowee souvent duñu am temps wala dara. mais moom gis nañ ni ba mu ko débuté ba tey mi ngi ci taxaw te tey toll na foo xamante ni mi ngi commencé ubbi bureau te bureau bi boole na ci waa extérieur yëpp taxawalaguñ ko mais nee na fii ak muy ñibbi xam naa ni dinañ ko taxawal foofee donc objectif bi nag ren ci en immigré en orphelin mooy pare ne ku nekk jël benn xale def ko ni sa doom ndegam fii gis nañ ne euh, adoption dafa xaw a metti c'est un peu compliqué souvent dafay gudd procédure yi ñëpp mënuñu ko ñëpp amuñu patience bi mm-hmm. mais nga jël benn xale def ko sa doom affectueusement ko parrainer di ko defal li nga mën ci moom mais en même temps ñoom seen ci seen association bi li nga xamante ni moom la ñëpp war di def mooy chaque weer ñu joxe li nga xam ne mooy set euros 7 euros c'est à près quoi 5000 francs te defe naa ne jafewul torop pour ñoom ñëpp ñu mën ko def donc affaire bi mu ngi màgg di màgg di màgg te seen ay projet Pape bëri na ci xale yi commencé woon nañ ci def ay dons def nañ ko ci pas mal na mais ren li ñu bëgg mooy euh, tabax li nga xamante ni mooy maternité bi nekk euh, Jamafara fële ci Kaffrine te Jamafara nañ ni maternité bi foofu la xale yu bëri di juddoo mais dafay am ay problème ay jafe-jafe yu dul jeex donc bi ñu yëgee loolu loolu tokk seen nopp pap ba tey dañu jël décision wu dimbali leen ci li nga xamante ni mooy tabaxal leen ko mais defe naa ne li leen gën a touché marqué ma man aussi ci histoire bi mooy ki nga xamante ni mooy Gorgui Sy Dieng di euh, sénégalais boo xamante ni yàgg na jàpp ci yëf yu mel noonu moom dara ñoru ko lu dul defe naa ne luy doxal te moom nee na leen bu ñu tabaxee ba pare moom dina dina équiper foofu nga xamante ni mooy maternité boobu donc loolu tamit Pape euh, dañ koy saluer bu baax a baax a baax di leen ci encourager te di wax tamit ñeneen sénégalais yi nga xamante ni ñoo nekk ci diaspora bi yëpp ñu jéem leen rejoindre jéem a rejoindre bi di Tringa pour mën a def lu baax Pape mais euh, pour tëj rek ci tënk li nga xamante ni moom la ñu bëgg def mooy récolter ay fonds fii ak euh, le 13 octobre bi ñu ngi organiser benn soirée de gala fële ci Radisson donc waaw un dîner de gala donc ci dîner boobu xam naa naa ni bu ñuy demee ci Pape Diouf ba dina am ñeneen ñoo xamante dinañ fi des ñoom ñëpp bu ñu mënee ñu dem jàpp ci dem dimbali xale yi dimbali association bi nga xamante ni moom day dimbali nee nañ nit boo mënul dimbali dimbalil kuy dimbali defe naa ne loolu tamit euh, Pape mbir la a ànd ñun ñëpp <laughs> ma dem fa bu soobee yàlla <laughs> Pape ñu remercier bu baax <laughs> Awa Thiam Awa Thiam li nga xamante ni mooy présidente bi di ko wax ni initiative bi rafet na di encourager invité tous les Sénégalais de de l'extérieur ñu jàppale ki nga xamante ni mooy association Tringa di leen wax ni que 7 euros bëriwul 5000 francs kese la ñoom ñëpp ñu def ci seen loxo ci participer ci euh, dundu xale yooyu ak seen euh, vie socioculturelle Pape. voilà donc Tringa diaspora Awa Thiam ñu ngi euh, mm. moom mu ngi koy jàppale boobu ba tey c'est bien Samba Diarra di càmminam nekk Italie moom tamit moom ci jàpp bu baax donc ñu nit dinañ def tout ba gën koo jàppale parce que def social moom vie euh, d'amour Diaw Ketchup mu ngi